waa Sénégal ah Balla ngi nii faraluma dégg ngeen Ivoirien bi la faral démb dama ko yónni démb dama ko yónni ne ko demel nga testel ma kii fu dooleem toll mu dem éduqué mu ñëw waa ah, jox ma résultat yu baax mu ñëw di sosal waaja naan ma ay doole bu mu yor ak kii comme weñ ak. xoolal ma waaw xoolal am na doole wala amul doole. te lan nga gis. waaw ah, mais boo ñëwee bu ma ni ma ko waxee moo moo ñaaw. ni nga moo agressif. waaw a xeex moo war a xeex moom nag mais yow yow kee nga faral mu en tant que sénégalais ñu takk jël drapeau bi vert jaune bi ah. voilà mais léegi lan moo tax nga faraloo. mën nga bëgg.

gaa yaa ngi ñëw de barki sayyidina muhammad ñoo ngi ñëw de gaa ngi de. Samba Abidjan yi ni Modou Abidjan ak Paate Abidjan. gaa am nañ problème quoi. wa senegal han ah, Balla ngi ni faraluma de ngeen. ivarien bi la faral. démb dama ko yoni démb dama ko yoni nako demel nga testel ma ki fu dolem tol mu dem éduqué mu ñew wa ah, jox ma résultat yu baax. mu ñëw di sosal waaja naan ma ay doole bu mu yor ak kii comme weñ waaw xoolal ma ba xam ba xam am na doole wala amul doole. am na droit wax wala te lan nga gis. waaw ah, mais boo ñëwee bu ma ko waxee moo ñaaw. ci ni nga moo agressif. Ah, waaw moom. waaw ah, léegi moo war mais yow yow kee nga faral. mu en tant que ñu takk jël drapeau bi vert jaune rouge derbeeg deret bi ah. voilà mais léegi lan moo tax nga faraloo. mën nga bëgg boo amatee combat yow laay faral. mi ngi nii. bilaay mi ngi nii di ma tiital. Balla Gaye ngi nii di ma tiital bilaay.